الله أكبر الله أكبر mbokk yi ci yàlla koor gi daanaka jeex na yàlla na yàlla nangul ñu subhaanahu wa taala waaye nañu xam ni borom bi subhaanahu wa taala dafa bind aljanna dencal ko képp koo xamante ni teg na tànkam mooy fa yonent bi jàngale woon sallallahu alayhi sallam ak sahabatul kiram radiallahu anhum waaye yàlla bind na safara daal di koy di képp koo xam ne dafa juuyoog jàngale yàlla juuyoog jàngale alquran juuyoog jàngale yonent bi sallallahu sallam bokk na ci ay mbir yoo xam ne yu doy waar la yu xaraam la tey mu tas ci dëkk bi tas ci monde bi mooy julli bi nga xamante ni dafa xaraam mutlaqan julli bi saxul fenn amul ci alquran amul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli bi ñu ngi koy tuddee déglu leen bu baax mooy fay faat bi maanaam loo mësul julli yëpp wala julli yoo sàggan nee nañ boo ko defee rek am na ñu naan ñeenti ràkka am na ñoo xamante ni nee nañ ëpp na ko bu mu ci mën a doon ñu ngi ko tuddee fay faat te ñu ngi koy def mooy aljuma bu mujj ci koor gi subhanallah boo ko defee ñu ne dafa mooy li nga fa li la faatoon yàlla dal koy jéggal lii logique jëlu ko diine jëlu ko te dafa xaraam jullit di mooy di def julli bi nañ ko moytu ndax képp ku ko def xamal ni yàlla mere na la képp ku ko def xamal ni sori nga yërmande borom bi subhanahu wa taala sori nga jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon bul leen def julli bi waaye na ngeen ko moytu moo xam am na ñoo xam ne ñu ngi envoyé message di ci encouragé nit xamuñu yàlla na yàlla yërëm ñu jéggal ñu kon daal ci gàttal xam leen ni mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na képp koo xam man ataani daxala aljanna képp ku bëgg aljanna rek nee na boo ma toppee nga dem aljanna waaye nag wa man asaani faqad aba képp koo xam ne mooy na ma def bidaa wala shirk wala boog ay julli yu amul comme julli bu mel ni nee na na nga xam ni moy nga ma te nag képp ku mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi subhanahu wa taala nee na kooku noonu sa dëkkuwaay moom mooy moy bugal mooy jahannam yàlla nañ ci yàlla musal mooy safara mooy sa dëkkuwaay yàlla nañ ci yàlla musal kon nañu moytu julli bi amul fenn yàlla jàngale ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko nañu fexe nag tas message bi ndax yërëm suñuy mbokk ndax ñu mën a sori li nga xam moom mooy bidaa bi nga xamante ni tey law na adduna bi comme nous feebar bi lawee at muy coronavirus tey ñëpp a ngi ciy wax waaye xam leen ni lii tamit liggéeyu seytaane la lu bon day bëgg mu siiw ba ñëpp def ko waaye ñu nit nañu ci al awliya mooy ñan awliyaullah mooy ñoo xamante ni ay nit yàlla lañ waaye di fexe moy kan di propager mooy lépp luy yob nit ci aljanna waaye bu ñu bokk ci ñooñ nga xamante ni ñoom ay caabi la ubi buntu yob nit ci safara bok na lu yóbbu nit safara moy lu melni ki moy li ma len wax legi mom moy bidaa ci diine yonent sallam nen nak fa man raxiba an sunnati fa laysa minni képp koo xamante ni wuute nga ak man rek bokkatoog man te yowmal xiyaama kat xamal ni doo bokk